Touba Khayra Touba Khayra yéen ñi dëkkee jaaxle ngir am ay meubles yu baax te ànd ak qualité enfin la solution ñëw na ak menuiserie tapisserie Touba Xayra lépp loo leen soxla ci wàllu meuble ci seeni salon ak ay fauteuil de qualité exceptionnelle chambre à coucher wala nga bëgg réfection maanaam defaraat ba mu yànj lool bul am jaaxle dawal gaaw chez Touba Xayra tapisserie menuiserie yemul foofu de ñi bëgg seeni coussin oto ànd ak jamono ak qualité Touba Xayra moo si mën loolee lépp mbokk yi ci ay prix maanaam njëg yu exceptionnel jàppandi lool jàpp leen adresse bi ñoo nga ca Géejawaay fa pare ak tournal Serigne Assane Fall ak ca Kër Massar cité Safko ay ndaw yu sawar dynamique te mën la ñuy def ñoo fa nekk mën nga également aussi def sa commande ci lépp loo bëgg ci wàllu meuble loole ci 77 498 72 72 77 713 94 57 wala ci 76 490 72 12 ak menuiserie tapisserie njàmbatu ci wàllu meuble jeex na tàkk. Touba jërë ngeen jëf mbokku internet euh, li si Rewmi TV mbokki ñu ngi waan mbégte bu baax ak contentement mbokku ñu jàkkaarloo ak yéen foo waaye mën ne si àddina di ñu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm di nuy kilifa diine yeeg kilifa aada yi di nuy suñu sëriñ sëriñ Babacar man Mansour xalif général di Tidiane ñu koy ñaanal bu baax a baax mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye noonu nuyu al Muntaxa borom mbégte mi ñu ñaan ko moom aussi xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér waaye rawatina bépp xalif généraux bi nga xamante rek yaa ngi si biir réew mi ñoo ngi lay ñaanal gudd fan ak wér gu yaram te di ko sàkk si ñoom di ñi nga xamante badu ñoo nekk si jàngu bi macha allah ku nekk nag xam ne ni eh, actualité bi lenn kese la wala si boobu ak léegi si loolu la ñuy dox di si wax rien que pour vous faire plaisir yéen ñi nga xamante ni yéenay baaxoo duñu topp si li si réew mi TV Modou Xarañ Lo ak ki nga xamante ni mooy Siteu def nañu seen face to face seen ñaareelu face to face foofu nga xamante ni mooy cosaan après face to face bi nag polémique yi bëri na ku nekk ak sa version ku nekk sa gis-gis si bile face to face waaye de forme ñaari mbëri moo waral yaakaar naa tey ñu ñëw jël kenn si ñoom wala kenn si ñi nga xamante ni ay doomi parcelle nañu ñu gën ko ràññee loolu loolu loolu si réseaux sociaux yi muy alaaji góor mbaxal mbokk yaay Modou xarañ loo ak ki nga xamante ni mooy DG Lat Diop waaye nag Badou kilifa kër gi ñoo ngi koy nuyu muy sëñ Fallou Seck borom Tapsir Touba Xayra séeri soxna jaara ak soxna bana bàyyi ndey baneel ak maman ku nekk nag xam nañ la 5 octobre kenn moo ko moom muy suñu xarit muy suñu jigéen waaye muy ki nga xamante ni mooy madamu PDG muy soxna jaara Bousso ñu koy ñaanal baax a baax encore une fois yàlla suñu borom gën ko defal jàmm waaye yàlla gën ko bàyyi ki nga xamante ni mooy boroom këram mbokk yi du ñu guddal DG mon ami mon frère Gora Mbaxal tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy restaurant bu si roq bi maa ngi lay nuyu amaan mbégte jàkkaarloo yow Gora. yee Serigne maa lay ziar la jox sa wàccuwaay di la nuyu di nuyu Badou sa caméraman bi ak waa si réew mi yëpp xam nga di wax ñu ngi sant yàlla di julli si bàyyi Laye Aliou wasalaam di sant suñu ñaari waajur xam nga sëriñ di gërëm sama papa ak sama yaay xam nga sama papa ku tedd ki maa ngi koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla wéral ko. xam nga cër yëpp mat sama yaay noonu mère dëgër musóor maa ngi koy ñaanal ak sama famille yëpp ah. di béggee ñëpp sama soxna ak xam nga doom yeeg àdduna daal xam nga di ñaan nag Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm parce que jàmm si la lépp xaj di ñaanal àdduna bi di ñaanal waa Europe am naa fa ay soppe ay lépp mais sëñ dafa am loo xam foog ma wax ko Sénégal xam ko. muy sama mentor. sama papa sama kilifa. Hmm, sëñ Abdou Lahad hmm. gën ko xam Laat Diop. Hmm. muy nit ku baax di def social. am lu mu apporter Sénégal. xam nga indi si réew mi ay opportunité pour Sénégal jariñu si mu dimbali waa géej waaye taxaw waa géej waaye taxawu Sénégal ba partout dans le monde tey dafa nekk si ay jafe-jafe état da nga teg jafe-jafe yu nga xam ne amul benn preuve. Hmm? billaahi wallaahi barke alxuraan man du ma waxantu. amul leen amul leen li nga xamante ni moom lañ koy toppee. mu la koy toppee parce que dañ ko indi foofu ni que nit moo la fi indi parce que nit neen dala daan corrompre. Hmm? loolu lañ ko convoqué dik mu dem ñu indi ay yeneen neneen yeneen wax ba léegi amuñu preuve. boo gisee avocat yi ñu ngi bëgg a def. yaa ngi dégg conférence de presse mais mënu def conférence parce que kenn joxoogu leen benn fooy kenn waxagu leen lii moo ne si dossier bi hmm. xam nga loolu Sénégal dëkku loi la. Mhm. dëkku yoon la. Mhm. un pays sans justice loolu baaxul. Mhm. nan xoolaat réew mi. Lat Diop yàlla na ko yàlla taxaw. nit ku baax la. kooku dama ko tuddee doomu sëriñ. barki Seydina Muhammad sama deret laa ko tuddee. kooku daf ma defal lu ma nit defal. billaahi wallaahi ni ma mel nii grace à Lat Diop. te gore gore ba xëy dee. moo fi am. man su ma naree ñàkk su ma naree ñàkk ñànk yàlla bu ma am. man damaa gëm suñu borom nangu dogal bi gëm yenent bi sallallahu alayhi wa sallam man jullit laa maa ngi ñaanal Lat Diop sama xol dafa tooy sëñ kooku dafa am fu mu féete keroog bis biñ ko convoqué di manuma woon dem après yi si topp xam nga ñuy dem muy metti keroog bi muy dem ba ñuy tàllal loxo si oto bi yaram yi dañ summeeku yaram yi dañ daw toog naa korok université deux heures de temps trois heures de temps mënu ma jug sama lépp damm xam nga senegal nan bàyyi di tuumal gor di waxal gor lu mu deful mais nag gor moom moom tuuma garaawul dafa am lu daloon mag Sall mu fi romb ay jàpp-jàpp loolu la état bii di defaat te loolu lépp seen kaw lay xëpp nan moytu loolu ñu ngi woote di jàpp ku ne loolu baaxul nan jéggalante di jéggale àdduna ku dul jéggale kenn du la jéggal fayantoo baaxul yàlla na yàlla fay macha allah yàlla na suñu borom daal di teggil nattu yëpp moom sama mentor boobu di Lat léegi Gora yaakaar na am na lu fi doon xew gisuñu la sa absence kenn xamul li ko waral balaa ñu ñëw si signature bi ak noo gisee moo doog noo gisee site d' après chroniqueur après le seen point de vue mu joxe lan moo waral absence Gora Mbaxal si bile face to face waaw sëriñ au passage maa ngi gërëm le PDG de Jambar Ba hmm. borom kombaar royal bi Mansour maa ngi koy gërëm di ko ñaanal nit ku baax la sëñ xam nga li may wax. julit piir ngi noonu kooku alxuraan nekk si dëgg dënn bi. du xëccoo du xaste du wax lu ñaaw. xaalis jaralu ko loolu papam père ba. yaru ko si loolu. maa ngi gërëm papam père ba di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi njaboot ak yaayam xam nga maa ngi leen di ñaanal di ñaanal waa ko ñoom Mansour ba ñoom may ba ñëpp. maa di gërëm nag jàmbaar production staff bépp ñoom assurance ñoom Papa kenn du moom kooku ndey di seex la kooku daa tëdd njaaxaanaay ku ñëw Papa Sow ndaw lu guddi la ku làmb da yaakaar ne yaa moom kooku su ma gisul alu góo baa jàmm nànkam di la nemmeeku mel ni deret Papa yàlla na ko yàlla fay xolam parcelle bu tollee nii Papa Sow da si bokk di gërëm Papa Gueye Xeer assurance Assane Ndiaye Père Thioune xam nga gars yi yëpp ñoom sëñ daam waaw waaw waaw jàmbaar bi gërëm naa ñëpp ah ñoom Assane saar xam nga gars yëpp maa ngi leen di gërëm ñoom xam nga Sarr grand Sarr billaay bàyyiwuñu kenn barke alxuraan bu limee juum di gërëm mbëru parcelles yi ñoom franc ñoom góor sok ñoom ñang baala ñoom talfa ñoom giro seras anaconda bekaay ah, xam nga John Waly gars yëpp ah Albouri di leen wax ni 100 pour cent mi ngi ñëw si combat yi ngeen jëm 100 pour cent parcelle Cambérène Grand Médine ñu ngi ñëw ñu naan accompagner mburu parcelles yi mburu Cambérène mburu Grand Médine tund bi yëpp ñun duñ bàyyi dégg nañ lu ne nag gis nañ lu ne mais lu baaxanu tax a jug te kuy def lu baax doo arrière mention spéciale Mansour Ba le PDG de Jàmbaar julit pire doomu yaay Papa Sow ëcc sëñ. macha allah absence bu góor a mbaxal si bi lay face to face la. sa góor tey li nga nuyoo bëri na. waaw sëñ loolu moo ko laaj. Mm. waaw xam nga boo gisee absence bu korog. Mm. ñu bari interpellé ma xam nga dama nekkoon si ay tolof tolof. voilà dama nekkoon si ay guddi yu xat. mooy sama mentor bi ma la wax Lat Diop. la yoon tegoon loxo ñuy jaabante. te rus naa Lat Diop am problème ma dem di ànd ak Moodu si ay signature. nit ñi di ma gis ci caméra yi. man loolu rus naa ko. Moodu déggante nan avant moo dem ba bu muy nekkee foofu ñu ngi déggante. xam nga xool beeg xalaat beeg lépp a nga fa woon. Moodu du dem Moodu du dem bàyyi nu nit ku baax la ñun tamit dem bàyyi ko mais bu situation taxawee moom jullit la dala koy wax toogal xaar lii defal lii tey buñ melee nii gën a dolliwaat sunu xel si yàlla muur dasee bokk booy ànd ak ku lay jëmee si yàlla koo kookoo jara àndal man damay dégg lu ne ibaadu laa mm-hmm. ay dafa changé ay dafa sant yàlla mm-hmm. ñoom buñ sañoon ma mel neneen mm-hmm. am na ñoo xam bu lay wax loolu dañu bëggoon ngay gens wala nga nekk si leneen wala tak sa sim laa sa suus xaw ma ni nga xale di waxee da ma si loolu man jullit laa gentleman laa jullit àqan laa damay julli waxtu yàlla bi yaa ngi dégg di def lu yàlla santaane loolu laa bëgg te yàlla mu si yàlla xër macha allah mais keroog Siteu dafa leen daal di ruubee si face to face parce que Siteu keroog dafa ñëw beneen facette góor mbaxal non sëñ nag boo bëggee dégg dégg ma wax la nga xam Siteu la gars yi xàmmeewul ndax si nag si naka. waaw merci xam nga Siteu moo daan ñëw ni la xam nga. Hmm. danga may saf jeeg. combat bi passé loolu la wax adversaire am ñëpp teg seen bët. Hmm. adversaire am di siisu. Hmm. am nag euh, beneen adversaire tamit euh, du ma juumul guy gi la. mu ni ka yow curkindaa nga. waaw man carkin tarkindaa laa yow curkindaa nga. xam nga da ngaa yara dal. su ay euh, adversaire am siisu mais loolu lépp signature la mais Koro moo dafa ñëw muy xat nekk fa di xiyoo ŋaayoog di garaaw garaaw di teg bandi moo ni ko booyee eh, man maa la gën a xotteeku <laughs> te lim ko wax noonu ak am. Hmm? xamul Modou. Modou sama na gën a xotteeku si yàlla min bi. ah doo bàyyi dañ bokk. ah damay laajte di. yow Modou ñaata mbër la fi dee ku nga naan ay sita ku saa ku saa daan barki démb guy gi daan la. yow nit ñi may la xaalis sa ngaan ay xotteeku xotteeku moo la gën a xotteeku aller retour. waaw mais ki ki ki nii la Lac de Guiers 2 la c'était nii la la c'était bëre la quatre vingt cinq minutes de combat donte ni sax division arbitrage la li nga xamante ni kenn fokk ko ci làmb surtout daal di ko indi Lac de Guiers. Lac de Guiers dama ko duma ba mu daw génn saako yi woo arbitre su amul du génneel vaar dama ko duma mu daw jël sama tànk daw ak man. non da <laughs> kon xam nga luy duma. non da ngeen xeexante yéen ñaar. Lac de ñaar yoon leen bëre ñaar yoon. Hmm. deuxième fois bi laa gën a liggéey si moom laa gën a pare si moom dama kaa duma may ka lu ne mu jël sama tànk daw ak man loolu bu ko amoon Siteu daan Siteu kon bokkunu buñ xalaat loolu bu dee Lac de Guiers teg comme stratégie ñu ngi leen di xaar bu ñëwee dafa fekk xarañ loo mais Siteu bu indi li mu li mu indi Lac de Guiers dina baax si moom parce que tamit quoi qu'on puisse dire dafa ay si ndaw. boo indiwul lu raw lu raw li nga indi Lac de Guiers di nga am problème. bu dee li nga indi Lac de Guiers 2 nga indi Modou. da ngay yomba daan bàyyi boo nga gën renforcé li nga indi woon triplé ko def ko trois fois. est-ce que ñëpp nañu cité instant yi ba leen cité la ñu gis. waaw ah, barki démb Ndiaye la Modou toog di ñax li ngay dégg coow li ak wax ji xarañ loo kuy bëreeg moom say waa kër duñ am jàmm si da nga ko dégg di fenn moo daan taq micro yi di wax si déggatoo gisatoo ko. mais parce que li ko war. jeex na kon comme looloo ko war. Hmm. wax waru ko na dem liggéey. mais tamit yaakaar naa wax ak signature contrat pour jaay nekk si promotion combat bi est-ce que nekkul tamit loolu moo nekk complexe moo tax mu naan Modou dama yaa waxoon da jaay combat bu dul man du jaayu yow ñëpp xam nan la jaaye combat ak neexal looloo tax nit ñi di la tëggal. yaa ngi dégg li la nit ñi di tëggalee rek da nga koy wane. Modou Lo ban signature la dem ñu naan ko moo war a jaay combat ban la Siteu ma bàyyi xelam bi muy fooyee meen. mais wax loolu. non non ko dafa am ay événements yu nekk suñu kanam. non loolu d'accord mm-hmm. man nangu naa loolu. Mm-hmm. xam nga mais ay Modou yaa waxoon da ngay jaay làmb ji loolu du waxam Modou ku waxam xamee ko si tekk rek mm-hmm. ñëw wax boo waxee loo war wax mu wax la li nga war a wax bu ñëwee war a jàll nga téye fu mu jàll mu bënax la jàll déggoo ma de moo tax Modou ni ko maa la gën a xotteeku te aller retour la ko gën a xotteeku mu ni ko maa la gën a nëb boo bëggee ku nëb dangay dem armée li sulli ñun Cambérène fi ñu dëkk sang suul wala dëkk ñooy sang suul. Ah, dafa nëbb. waaw ku nëbb mu ngi armeel ya kon loolu jeex na kon moom mu ngi baax ya ku xotee ku xotee ko pare si lépp. Ah. kooku amul ku koy ñawal. lu tamit doy na waar de. non non lu nëb bokkatul yow sa lu sa kër. sa kër hmm. bu fa amee lu nëb da nga koy jël tuuri mbalit. Hmm. boo amee lu xottee da ngay uti tailleur mu ñawal la ko. Hmm. kon ñu ngi si live bi. I am Kamen Mien. ay Kamen Mien nag yooyu yow amu si parce que instant yii nag yow xam ngeen ni carrément nag yéen ngi doog am adversaire bi nga xam ne taille la. yéen a ngi doog adversaire bi nga xamante ni bureau moom foo ko natt weesu na ko góor mbaxal sëñ Apala Mucco billaay Apala Mucco wax jee bari rek Siteu Apala Mucco billaay wallaay tàllaay na dem laajte loolu Mucco mel Apala Mucco wax ju bari na góor yaa ngi nafar de. non du nasar sax ñun tamit sëñ bi yàlla dimbali nanu mais yi ngay wax nii ay proverbe waa jàmm gën la. non non ñun suñu yëfu bopp lañ yor. Siteu man du ma kii euh, sëriñ man du ma faa kenn sama àdduna. Hmm. man sama slogan bopp laa sama yëfu bopp laa man nit ñee may roy man royukaay laa. Hmm. Mhm. sa waay mu ni bu tëjee bunt mu day daj bunt bi yàq dër bi yëpp foqati li nga xamante ni moom la moom demee waaw loolu man naka def arène nationale mu ñëw bunte yi tëju mu daaji buntu arène nationale mais géegu amul bunta barrière la am te barrière da ngay ñëw ñu xajal la nga jàll. digg géej arène nationale dafa yaatu de lu waay waxoon dina si dellu barki yonent bi lu waay di jaay ba dajeeg ndaamat parcelle bi xarañ loo le maire borom drapeau yu bari ba waa lambe tuddee ko xarañ loo oh, oh, oh, ak ni mu pare nii. am na lu mu jotee parcelle de moom Siteu daan nañu gën a os parcelle. nañu gën a os parcelle. Ah, yàlla naka ndam li jig loolooy làmb hmm. waaw. ñan la nenn. dafa waa parcelle de. kan ak kan la fa amagul defet parcelle de. kan ak kan la fa daan. ñi mu bëreel parcelle yëpp moo leen de. ok ah, limal. non nañ li may hmm. commune commune Pikine nekkul euh, Mbaaw xam nga Pikine ak Mbaaw benn la. kon ñun buñ limee du dem buñ waxee limee Eumeu Sène Pikine la Ama Baldé Boy Niang Pikine la Guinée Issa Pouye Baye Mandione am nga Caaroy boobu yëpp jàmm gën si la bokk. kon ñun bu ñu waxul du wax déggoo ma la Siteu appala mu coola si am wax ju bari ji waaw wax rek amul leneen lum si am bu arbitre ne përëb hmm. Siteu bu tolloon ni tafaatin bu ñëwee Modou du ma ko dànk téere laa lay wax. ah micro ngay waxee combat bi des na deux bi la gën a pare contre Ama Balde. Hmm. combat bi la gën a pare contre Boy Niang parce que temps bi mu si am. Hmm. durée bi mu si am amu ko si combat combat ay problème la woon day am ak du am mm. ama daa feebar ak feebaru Modou Lo daa feebar feebaru mm. lamba ji këtt ni jonn mm. yaa ngi dégg mu ñu mu jëlaat avance booy ñaam su ma juumul cinquante deux jours xaw ma lan wax xaw ma waaw deux mois xaw ma lan bëre kon amul foofu temps de récupération amul dara yaa ngi dégg mais bii des mois des mois la am di jël récupéré Modou barki Demba Ndiaye bi ma reeree këram ñu toog ñu waxtaan man xam naa Modou li ko combat bi jaral la grosse dama ko jëkk a këram billaahi wallaahi taalaay ni combat bi daa daa combat am la. kon enjeu bi kon kaa am la gën a mën nee na combat bi sama combat la parce dafa am lu tax te xam ngeen li tax. man li tax. waaw sot yi nit ñi di wax ay dañuy dañuy sot moodu ak wax ju bari ay roi bi dañ ko fiy jëlee ay gëmul mystique ay gëmul sëriñ nan ko sot xam nga nit ñi ku ne di bëgg ne loolu moodu mentalam dafa fort. mais sax yàgg ku gëmul yàlla da nga ku gëmul yàlla moo ragal sot. sa moroomu julit yàlla sàkk mu sàkk mun da lay sot nga ragal ko man day ragal loolu daf ma arrange sax man su ma dem man su ma dem xare ma xam ne sot foo dégg nan ko sot ñeme amu fa kon ñoom ñemee gunoo sot yooyu ñuy wax képp ku ko dégg rek ñeme amu fa Modou pare na lépp te sëriñ yaa ngi fi maa fi maa ngi yaa ngi may interroger ma lay wax bu combat bi desee deux semaines wala quinze jours di nga dégg ay rumeurs yu garaaw sëriñ yëpp dinañ génn ni sitaay daan si combat bi sëriñ sëpp dinañ génn sëriñ yi nga xam ñooy nekk si tiktok yi sëriñu mm. naxaatekat yee ak sëriñu korompu yi dinañ taxaw si tiktok bi ni la Siteu ay daan mooy dóor mu daanoog mooy nàngam di nga gis ay promoteur mm. yaa ngi dégg ak ay nitu làmb mm. yuy taxaw ni Siteu ay daan di jàppale Siteu ñun pare na lépp loolu du ñu bett supporters yi woote. révélation yi ngay wax nii yow la moo waral nga nga jékki-jékki rek daal di wax. li may wax téere la sëñ man du ma waxantu sëñ gaa yi ñu may woo fu ne. ñu ngi may woo ne maa ngi gis lu maa ngi dégg lu ne mais ku gëm yàlla doo gis doo déglu da ngay ànd ak sunu boroom Modou dafa ànd ak yàlla. ànd ak yonent bi moo tax ñun ragalunu bu xeexee ñoom ñaar. duma ko. mënul ah, ba tey sa xalaat. si te benn góos am di tëb moytu mag ñiy tëb ñëpp ñuy tëb bëreeg Modou Modou bu leen enchaîné Ama Baldé bi muy dóor Modou Lo daa tëb damal nga seet vidéo bi Boy Niang bi muy dóor Modou daa tëb Modou képp ku muy bëral ngay xeex di tëb si te góosam buy ñëw day tëb. mais bu mu koy door sos tëbul. non mooy bàyyi mooy nga may ay waxu sos sos ak muur yam. exemple laa la jox boo jël exemple da ngay jël lu comparé nga comparé ko. bu ñu bëree Papa Sow tëbul. waaw bu ma boolee Papa Sow Papa Sow ak Modou yamunu bëre yamunu waxuma du mbër de waxuma du mbër de yaa ngi de Papa Sow tey day jox kele bi Modou. mais non mënoo si estimer ñee bëgg a bëgg. non non non non. waxtaan. non kon déglu leen wax ji. yéen li ngeen bëgg mooy debaa man parcelle laa moo ñu fi indi man parcelle laa yaa ngi dégg Zos ma ak moom deret la. man aw ma xaaj ak seen Modou Zos wala Papa Sow Zos. aw ma sàgg seen dama lay wax ils na sont pas même ils ne sont même xam nga ñoom ñaar yamuñu. xam nga roy dundoo pour dundoo piir Modou yamul ak Papa Sow bëre Modou yamul ak Zos bëre il faut qu'on se la vérité nan waxante dëgg bu nëbbante. yaa ngi dégg boo indee ay Siteu Zos ay Siteu. Euh, Papa Sow da ngay réer si Modou Modou kenn mënu ko natt. mais pourtant Papa Sow yëpp bëri nañu ak na Lo. mu maanaam bëri Papa Sow mbëree Modou Lo lu ko si fekk. métti. Oh, waaye sama ndaama loolu ah. mais bëri bu métti non dañuy waxtaan quoi quand même parce que parce que combat bi dama bëgg ñu xam ni combat bi combat la. dañu bëgg nit xam ni combat bi. combat capital la si ñaari mbër yi rawatina nag ki nga xamante ni mooy Siteu parce que dafa dugg cour des grands ñàkk ñàkkaat ñëw ba rek la de Guiers am lu mu wane woon giraat ki nga xamante ni mooy Modou Lo te Modou Lo bëggul perte couronne bi kon moo tax góor a fa la ñu waxtaanee lamb ji léegi ma wax la dara Papa Sow ancien gloire la bokkatu génne ko si man maa la ko wax tëjal la close Papa Sow Papa Sow waaye ancien gloire nga bokkatoo mm. sama ndijaay mm. yaa ngi dégg mm. Siteu li mu amoon sens si làmb ji mooy noppi bi mu doon noppi mais malheureusement nit mi dugal nañ ko ba yëngal Modou si làmb ji Modou Koro dafa ba ñax ah mais tamit bu mu mel tamit tarkindaa yi aussi gën a wér. tarkindaa yi ne fa di simb xam nga ñoom looloo leen neex ay faux lion lan dañuy solu 5 heures dañuy solu 17 heures 19 heures ñu summi seen simba gaynde yooyoo leen neex yee yee xam nga fa lan ne di garaaw garaawlu moodul kii yaa ngi dégg mais ñu ngi leen xaar si lépp. macha allah macha allah bii du yooyu waaw bii du yooyu. mais bu mooy bi gën a yomb bi la. <laughs> bii du yooyu de mooy bi gën a yomb bi. mais bu ñu runkum tey ñoom ñaar. si. bu bis bu jëlee ku Modou ah dina log làmmiñ bi. laa def de. li daloon Eumeu dina ko dal maa la ko wax fii. combat Modou Lo indiwaat ko Siteu Modou. nga ni. waaw ah, nag la njool yàpp. macha allah taay bi mu yor. Ah, booy ñaa di njool. Ah, nga ñëw naan ma ay Siteu mi nii. moom laa la wax moo tax moo tax man la ndaama yeeg yooyu ngay wax man gëw ma yooyu. macha allah am na solo Papis Papis xarañ loo. si biir face to face. laata loolu doon nañ dégg ay rumeur si diggante mag Modou Lo tey bu amoon éclaircissement yi nga siy def lan lay doon. mooy Papis doomu Modou Lo la rek. waaw mais lan ngeen si bëgg yéen comme nan. absence bi. yax dëgg yàlla nag loolu. ah loolu leeru koroog nag ku dee ak sa bàmmeel. man man teel laay waxe billaahi wallaahi maa Papis daal yeneen gàlle Modou Lo billaahi wallaahi maag papis daje nañ gàlle Modou Lo Yoff ba am lu doon waxtaan. benn business no boobu Modou mu ngi jugee géej ji ñëw. waa parce que boobu Modou mu ngi géej ay vingt une heure vingt deux heures. boobu Modou papis fa la naane kafe biir kër Modou Lo Yoff. mu wax manul ñàkk. xamali ma la wax Sénégal yi leen bëgg ñu tongoo. Modou manoon na am ak problème ak papis lu ndaw sax nit ñi taawee am na ñoo xam dañuy puus nit pour ñëw bokk. yaa ngi dégg waaw pour mieux régner loolu mënul ñàkk si àdduna yaa ngi dégg mais ay papis xarañ loo Modou Lo loolu jàmm la parce que papis ku ko xam Modou nga ko xamee sa papa ak sa yaay sax yaa ngi dégg yenn saa yi dañuy tongoo mm-hmm. papa ak doom dañuy tongoo wala dara loolu mën naam si àdduna men mm-hmm. man loolu wóoru ma nag muut taxawul wax ma loolu ku dee ak sa bàmmeel mm-hmm. papis mi taxawul wax ma loolu kon mënuma gëm loolu mën na nekk nag si ay vibes wala ay nangam ay nangam waaw mën na am quoi mën na am weddiwu waxuma amul waxuma am na mais man comme lii signalé ngeen ma ko dinaa jéem a gëstu lu ma si am xam lu ma si amul xam non non man man jàmm man man man man icône la man babis babis su ma ko wooyee daf may wuyu Modou su ma ko wooyee daf may wuyu mais xam nga mais comme ñi ñi ñu ngi bëri wax man dinaa jéem a xool bu dee du jàmm ñu dox jàmm bu dee jàmm la xam nga parce que làmb dafa am stratégie yooyu teg pour gagner lii mën na doon si ay yaama gën a xam moo tax bëgguma sori ah, Ah, waaw ni combat bi mi nga xamante ni moo da koy bëre Siteu ñu bëre moom d'accord si woon waaw non loolu ay wax la rek tactile man naam si làmb gis nga Modou chaque jour ak fi muy génneeg feemam dee leen sóoraale Modou Modou phénomène la bii passé bi mu ñëwee indi sans gàllaaj contre ñëpp di wax dañ koy dóor mu daanu mu ñëw contre Boy Niang defaat lool Modou leen mu génnaa leen beneen surprise Modou moo mel noonu moo tax Sénégal Sénégal père moo ma ko wax de nee na ma làmb ji mën nañu sa takku ba moo wax leen dee leen sóoraale wax man nag du ma wax lu may xeebe fii si télé yi parce que suba damay dee xam nga dama damay am famille bu baax bëgguma di wax waaw xam nga te bëgguma di wax nit man du ma wax nit lu ñaaw pour man ma am lu baax man loolu duma ko def wax dëgg yàlla man Siteu ak Modou laa yemale dama leen yéene lu baax far nag dafa am ak bëgg man Modou mooy sama lépp le bienfait n'est jamais perdu Modou daf ma defal lu baax te du ko du ko perte Modou man day jël alal bu ne di ma jox daf may teg si yoonu siraatal mustaqim kon kooku desatu la dara yaa ngi dégg ba ku la war a digle dina dalay yóbbu màkk kooku desalatu la dara xam nga ni la nekk si lii boo demee ba mokkal lii di nga naa la def yóbbu màkk xam nga ku la dig màkk Moodu dig na ma màkk Mansour ba dig ma nga sëñ waaw góor a mbaxal moom yow yow góor a mbaxal yow lan nga mais sëñ gars yi samay nit lan mais nit da nga war a dem fu baax ñu lay xam man Europe fu ne dem naa fa yaa ngi dégg Afrique fu ne dem naa fa kon tey bu nu ma diggee ay maak ak umra loolu mooy demal seet yonent bi meen man ku may may bie may ma ay billet màkk ay billet umra yooyu mais bu ma may ay ay Espagne ay Italie loolu xam naa li fa am meen maa man jaar naa Maroc jaar naa Maroc xam ma jaar Espagne xam naa lan ma soppeeku ça veut dire sant yàlla àdduna ku xëyul ku xëy yokku woo xoolal sa bopp meen man jantal laa man du ma booyu salte yi no man hmm, duma ma salteel xalaat non man duma du xool sama tuñ man du ma naan du ma toox du ma wax lu ñaaw du ma gën a xam sëñ man jantal laa damay xëy dóori waar sëñ déglu ma fii man damay xëy fajar six heures du matin waaw damay xëy six heures du matin yeewu julli sunu borom hmm. pare toppatoo sama njaboot xëy liggéey man loolay sama bërëbu liggéeyukaay yi nga ma fekk fii jël ma ma toog restaurant di wax ak yow xam nga fii boo gisee ñuy euh, fii restaurant bi ñu ngi koy jàlle au passage mm. mooy bi si rox bi di woo gaay bi ñëw bége fi mm. xam nga restaurant bu neex la RAS jàmmang fi féex na xam nga sëñ di kontaan daal di sant àdduna di wax nag sama équipe dafa dem final maay président bi muy ASC Kawsara bu Cambérène lan dem final ñu nag ASC Rakaaj mu ñuy ñaari nawle ñaar rouge blanc Rakaaj suñuy nawle lan football la nag reste fair play yàlla may nu di la gërëm di la sant bu ko dagg ko dagg badu tourneel ma xool yéen ay bandi ngeen ay wéyu ngeen xam naa leen booy yéen ay wéyu ngeen yéen ñaar yéen dama leen ragal man yéen laa gën si ay jinne caméraman ngeen moo tax kër Mour doo leen fa dugg doo leen fa jege tem tarki ndaay am lu leen jox yaa ngi may dégg si non damay giree Modou lii li nga wax nii Modou Lo mën na la si woo. non Modou Lo waaye la wax dëgg yàlla sa nit la moom dañuy toog may wax lu rafet si yow wax dëgg yàlla yow moom gaañu gaay nga gaañu ñëpp nga amoo xaaj ak seen yu taloo yooyu. yaa ngi dégg di gërëm nag sama ASC sama koñ gis naa seen taxawaay xale yi mag ak ndaw final la ma yàlla yóbbu ñëpp di ma gërëm di ma sant en tant que président ASC Kawsara kon sëñ li ma war mooy def lu baax si dëkk bi man modèle laa icône laa si dëkk bi xam nga am na loo boo koy def da koy def ak sa diplomatie. am na boo koy da koy def ak yar am na boo koy da nga koy ak discipline àdduna loola laaj tek def lu baax wax lu baax sol lu rafet nit ñi naaw la xam yaay kan am na loo xam ne yenn nit ñi xam nga dangay am comportement ñu lay tiimal lu rafet ngay wax sol lu rafet xam nga di gërëm nag Modou loo di ñaanal Siteu jàmm parce bi mu ñëwee ba léegi mi ngi wane yar wax dëgg yàlla xam nga mu ngi wane yar non da ko ruus loolu ruuseel la man ma Siteu fekk na ma kër Modou comprendre man xam naa nu mu demee. làmba la ñu mayante xaalis. mais Modou xamul foo. xamal làmba la surtout lu mu mën na def ak ay mbokkam nan jaay làmba ji yokk pour moo làmba ji xama mais bu si kenn saag kenn bu si kenn wax kenn lu ñaaw Sénégal lan ne day jeex Modou ak surtout ay icône lan ay nit lan ñu ngi am xaalis ñu ngi wax lu baax man wax lu baax lan ma xamee si laay wax di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal Mansour Ba le PDG de jàmbaar combat bii nga dugg yàlla nga si gis sa réussir Mansour Ba Mansour ba combat bi nga dugg yàlla nga si gis sa njariñ barki Seydina Muhammad Mansour man dama laa bëgg Mansour dama laa fonk teg la fu ma tegul nit bari lu ne laay dégg ndax yow lu ne laay gis ndax yow barki alxuraanu karim sama ànd ak yow bu dee xaalis yàlla na dakk tey dama ànd ak yow ak xol bu sedd ak say waajur ànd ak sama papa père ba ñoom Franc ñoom Gora Sock ñoom Modou ñoom Ñang Baala ñoom Talfa Anaconda booy parcelle yëpp Giro Seras aw ma xaaj ak seen ñoom ñëpp dama leen yéene lu baax kon yàlla na jàmm mais Serigne li li si réew mi kenn du mooma ah. seen émission neex na trop franchement li ngeen ma interview dama kontaan temps yi xew ngeen nag yéen ak yéen a yéen a def dëkk bi doom. gem bi daal bu ñu kenn yàq. da ngeen bu ñu kenn yàq man dama ku ma man ñëpp laay da ngay sóob. barki yàlla doo gem naar naar faal. dégg ma la ñëpp ça kii pël bu rafet. kii. jàmbaar. man la ku la ñëpp mënoo jàmbaar mënoo gem jàmbaar pour. Ah, jàmm mënoo ko. jàmbaar xanaa ah, géemati jiilee fa eh, ah, <laughs> <laughs> noonu Badou Faye am na am na solo yaakaar na eh, tey gis ngeen tey alaaji góor a mbaxal lañu ñu jël si woon kàddoom yëpp nekk kàddu yi nga xamante ni kàddu sensibilisé la waaye kàddu delluwaat nit ñi parce que ñu xam mbir mi du affaire de saltel du affaire de violence surtout Modou Lo ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. xaalis moo leen boole rek après bu jeexee jeex na ndam li génnul réew mi que ce soit Modou que ce soit Siteu ku mën a daan rek ndam li réew mi dañ leen di souhaiter que le ñu ñaan le promoteur Mansour Ba encore une fois yàlla suñu borom gën ko defal jàmm si biir bis waaye jërëjëf encore une fois sama waa ji maa ngi lay nuyu baax a baax faya borom ñoojoor maa ngi lay kontaane chéri Absa di nuyu waa ñoojoor yëpp di leen ñaanal jàmm mi ngi noonu mbokk yi lu fi neex suñu borom la lu fi naqat lu neex suñu mat di la dig daje beneen si beneen numéro ñu waxtaan